nga de waaw booy bii nii laa jàppal sànq maanaam damaa sonal ci jaañ maanaam may ma ab code may ma ab code tey jii yii nii laa suyee mu jàpp cent cinq mille gis nga nag booy na mujj tay ma jël jël la waroon bàyyi. non non ma. jël la ah, na mujj tay nag dootu ma fi metti kenn ko damay bañ waa TikTok bi. kenn ku ne naan ma naan ma naan naan. naan damay bañ waa defal ndànk nga wax leer damay bañ waa TikTok bi ëllëg ñu may naam ay kipo ay kipo ndax ñu koy laaj dafa bëri te yàlla xam ne du ma suy ma ay kipo li nga sonn doo nga tax na ma dimbali la tey lay mujj barke yàlla tey laa lay mujjee dimbali tey laa lay mujjee dimbali adduna dootu barke Serigne Touba Mbacke dootuma suyeel ati kenn ab kot di ko ko seetal muy jàpp yàlla xam ne ko déedéet yàlla xam ne dootuma kenn yàlla xam ne pare naa ci maanaam doo ma suyee yéen a ma sonaloon waaw kay lii mooy ñi xam xamante ni baax na ñi nga xam ne yor place seen place kenn du fa taxaw di jënd kenn du ko waxaale kenn du ko def dara lu ñuy jaay kenn du ko fa lay nekk bañ nangu marchandise ba julli seen bopp ngeen ne ay ñam dama wuti ay ay ay yu fort bayra yu France bayra Njaay te bàyyi seen taxawaaru gi. càngar gu doy waar gaa yi noonu càngar gi ci lépp lay dox ci lépp ji ngeen maam xeeti parfum yi mu àndal rek juróom-ñaari xeeti parfum yi mu àndal rek xeeti buur yi fi nekkoon te amoon doole waaw ak xeeti nit ñi fi ne woon bëri woon sañ-sañ ci yooyu noonu lañ koy booleel gis ngeen bii moo gisee mooy aaruna aaruna kenn ku ne xamoon na fi ne fi nekk woon na ba tey gis nga ko ay ñoom xeeti parfum yi mu ànd yi yëpp ngi nii. kii ci Aïssa xeet yi nii moom lay ànd juróom-ñaari xeet parfum yi mais cangat gu yéemee ngi nii gu doy waar doy waar numéro bi 76 la 349 24 99 ku ma jot nga bàyyi na message whatsapp ah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ah sëñ Diagne tey daa mel fekk na la sa bërëb moom gis nga de ah waa lii moom xanaa sangu iya. fallu lay doon bilaay waxuma la sangu fallu waye bayra la go xamanteni go gu ànd ubbeeku goo aku ni ak ubbeeku gaay képp goo xamante ni hmm. hmm. yoroo gu dëgër bu ci dug ah gis nga boo ni turu turu turu saxaaba yi ni lañ lañ lañ ko lañ ko teje gis nga ah waaw yéen turu saxaaba yi Ousmane Ababacar Omar Ousmane Xali mi bi dal kep go xamanteni ni dox ci falu wala hmm. kuy dox ci mbir mo bëgg am ndam waaw mi ni ah kii dafa kon sama sama mbokki commerçant yi moom yaakaar naa danañ ko itteewu bu baax a baax ñoo ko moom ko moom far yàlla ak képp kuy dox ci bépp biir rek ah. ba man di doon pour yëngu hmm. waaw a jóg ah moom du ma génn sa kër gi te joxoo ma ko loolu moom ma ko xalaat moom bul wax dara dara yow ñoo far soo ci noppee it doo ma ko joxe noonu ma ci kaaraange goo xamante ne si moom kaaraange yi ñu yor maanaam kenn yor ko ah, ah. lu ma waay lu ma waaye def mu këpp ci kawam te kenn du mën ci man dara kaaraange moom yi ñu ci yor maanaam dem si nii du ko yor ah sëñ Ndiaye sa këyit gi daa mel du li may gis lépp du li may gis donc tàllal ma léegi kan men léegi kan men yow xaa bind nga ko fukki fan juróom moom lii kay ci un la bokk ñu ne bind un mois ah ci bokk ah sëñ Diallo daa mel ni yëggagul ba la kayitu kan men jërëjëf